asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi ñëw di leen di jottali lim bi nga xamante ni am nañ ko ci mbas mi ñuy wax Covid fii ci Sénégal ci bësu tey bii talaata di ñaar fukki fan ak benn ci avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale jot na lim bi ma leen di bëgg a jox ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi ñu def. fanweer ak juróom dellusi nañu am doomu jangoro ji ci yoyu fanweer ak ñeent mom lañuy wax ka contact moy yi nga xamantene ñu ngi leen di seytu ci suñu bërebu liggéey kay benn ci ñoom joge na ci li ñuy wax transmission communautaire moy manam ki nga xamantene ne xamul fan la jëlé fièvre bi ci ñi nga xamantene ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di juroom ñaar ci ñoñu bi ñu leen amatuñu doomu jangoro ji wër nañ ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan fu bu toll nii gisaguñ ci ñoom benn cas bi nga xamante ne feebaru mbas bii dugg na senegaal ba léegi ñu ngi tollu ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar ci nga xamante ne ñoo yor doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar wër nañu juróom génn nañ ci àddina benn delloo nañ ko réew mi mu dëkk ci yooyu li fi des yëpp mu ngi toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xamante ne ñu ngi leen di continuer di faj ministère de la santé action sociale mu ngi gën a ñaax askan wi ne ñuy topp digtal yi nga xamante ne wax nañ leen ko ngir ñu bañ a jot feebar bi te bañ di ko wàllaate ci yooyu ñu ngi dellooti di tere li nga xamante ne mooy nuyoo ak loxo yi nañuy di raxas loxo yi ak saabu ak ndox boo xamante ne danga toog ak benn nit na ngeen fexe am xàll bu tolloog meetar ci seen diggante bu fekkente ne dangay sakkat wala ngay tisooli na nga yore mouchoir soo paree nga sànni ko ci mbarit mi soo yore mouchoir nga jël sa conc ci biir conc bi nga sëkkat si wala nga tisooli si ñu ngi leen di wax tamit ne dañuy sol masque yi fépp foo xamante ne dafa am rassemblement ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam